Fay Abdoulaye naka suba si alhamdulilah lu ñu mun a jukki tey ci Walf Quotidien waaye yéen a kaay gii di Walf Quotidien dafa xëyee amala taxaw seetlu yaatu jëmale ko ci lu jëm ci wàllu ko Macky Sall mi nga xam ni Euh, la nga xam daanaka réussir na ko bokk na ji tas euh, xaajale kon lenn ci ay borom xam-xam yoo xam ne ñu ngi nekk ci biir réew mi la euh, bi ci mujj rek moom moo di problème mu DG bi gis nañu ay ay ay ay ay ay ay agrégé yoo xam ni génn nañu nga xam dañu lànk na ko fësal Abdoulaye mm-hmm. te moo di Ousmane Sonko mi nga xam ne ji ñoo ngi hôpital Ousmane Sonko nee na daal yéenam ak bëgg-bëgg ko yéene euh, xam ne ne lu jëm ci terrain gi nga xam ni moom lañ ko euh, ji sonn lool noonu la ko yéene kaay di réew mi kon xëy fësale réew mi quotidien le peuple hôpital principal bu Dakar gannaaw malaise bu doy bi nga xam moom Ousmane Sonko def na ko Ousmane Sonko jamono ji yóbbu nañ ko fële ci réanimation euh, moom njiital parti Pastef nag xam ne ne yéenam ak bëgg-bëggam daal delluwaat ko euh, fële ci Sébikotane noonu la ko yéen a kaay gii di la peuple heures ne gannaaw ba nga xam ne waa DG dañoo siisu lankandaar ni du ñu ko jox la nga xam ni moom ay fiche de parrainage am Ousmane ay avocat am nee nañ mbir yi dañ ko yóbbul ca Sénat noonu la ko yéen a kaay gi xëy fësale ci jamono jile waa F24 ñu nga yëkkati seen cadre bi xam ne Euh, ñoom daal gis nañ ñoom ñaar ñi dañoo far noonu la ko yéenekaay gii di 24 heures xëy fësal yéenekaay bi di Source A ne saisine Sénat euh, mu soxal avocat Ousmane Sonko yilee euh, ñoom nag la ñu bëgg mooy que ñu fexe daal ba caytu problème Ousmane Sonko fexe daal ba ñii di waa DG jox ko li nga xamoo di ay fiches ñoom waa Sénat sax daañu dajee ni ëllëg ci àllarba ji ngir waxtaan ci mbir moomu lee leneen itamit loo xam yéenekaay gi xëy ko fësal te mooy njabootu maam doon occasion ci njabootu euh, ci njaboot ko ñu daal fàttali pré euh, Ousmane euh, ki nga xam mm-hmm. koy dund xale yi nga xam daal ñu ngi mbëkk gaal yi di utali fële ci bitim réew mu nekk na la ko yéene kaay gii di yi nga xam moom lay amal jamono ji te saa su ne ñu koy ñu ko ci ñu loolu nag dafay dakk neen daal daal moom amul kenn ko xam mën na ko tere mu amal ab taxawaal fii ci biir Sénégal noonu la ko yéenekaay gi di l'info xëy Fesal Abdoulaye. yéenekaay geneen Ba yëngu Ba daanaka daal ay euh, maanaam ay ko teertoo fële ci Dagana fële ci Sakal aussi am na ci ne moo ba bal euh, ba fatel sax jot na fa tàkk euh, waaye tamit njabootu su ko def ñu daal koy jox lii di ay fiche de parrainage am. donc euh, critique. critique yéen kaay ne Sénégal jamono ji nekk mën a tabb ci gouton li ko waral mooy di fu mu ni gis nañ daal ci campagne électorale bi nekk daal ma nga ci xew mu nekk nag loo xam daanaka buñ ci jëlu ay matukaay Sénégal mën naa daanu ci maanaam mën naa tabb ci gouton noonu la ko yéen kaay gi di critique na ci ay garab yoo xam ne ni euh, ñu bari dañ koy jëfandikoo saa bu ñu sojee waaye xam-xam dafa wane ne euh, garab yooyu lee daanaka képp ku koy jëfandikoo ba moyut da nga amee feebaru cardiaque noonu la ko yéen kaay gi xëy fësal bokk na ci actifet dool liirub ak yeneen noonu la ko yéen gi critique xëy fësal Abdoulaye mangoog euh, yéen gi di révélation Abdoulaye dafa xëy dellu euh, gi ne euh, dellu siwaatam fii ci bureau mi nekkul loo xam ne ni lu lu lu leer na ndax ñu ba daal fu mu tane xamuñu ndax moom Karim Wade dana dellu siwaat ci gi di la quotidien ne président Macky Sall jot naa jàkkaarloog waa FMI délégation bi nag raf yëkkati nañ seen kàddu daal di rafetlu taxawaay ki nga xam moo ne jiite réew Macky Sall ba nee sax incha du yàgg dara daañu fas yéene dékas li ci tolloog téeméer ak juróom fukk milliard ak juróom suñu koppar jàppale ko Sénégal noonu la ko yéene kaay gii di di Sud Quotidien xëy fësal euh, euh, Sud Quotidien lam ñëw jukkil Sud Quotidien dellu soir ci immigration clandestine fële ci ci Nicaragua ndax jàpp ne moo yoon wi gën a gaaw ngir jotee fële ci États-Unis loolu nag moo tax jamono ji am billet Nicaragua doon lu jafe daanaka sax dafa manqué léegi nag am na si ñoo xam ne dañ siy kon di arnaqué population bi noonu la ko yéen a kaay kii di Sud Quotidien xëye fësale Abdoulaye euh, fës na yéen a kaay bi di stade stade yéen a kaay dafa xëyee dellu si ci journée Ligue des champions tey gis talaata ji lay doon Euh, Bayern nag ak lay ak Real ñoom daal nee nañ coupe euh, maanaam seen yéen ak daal mooy fexe euh, ba am daal seen ñetteelu succès noonu la ko yéene kaay gii di stade Khalifa Sall Abdoulaye suñu lamb lam ñu jukki Pikine ñetti ay do ñetti ci ay doomam daañu fas ci weer novembre bi muy ku ci mel ne Ama Baldé dana bëre Massène dana bëre booy Niang aussi dana bëre waaye Ama Baldé nag moo fas yéene ubbi làng yi noonu la ko yéenekaay gii di suñu lamb xëy fësal Abdoulaye kon euh, Pikine dina saf-sap ci bile saison ci bile saison ma ngoog euh, Seydina Omar Ba ñu ngi lay jaajafal amoon mbégte lool euh, fegook yow ci xibaaru yéenekaay yi daañ ci dikkaat incha allah na mu gën a